problème est dafa vaste que semaine euh, nationale euh, de la jeunesse Parce que nous avons un problème de fonctionnement problème de gestion problème de ni CRJ en l'occurrence notre président bi nga le président du conseil régional il def mu le président conseil national Khadim Diop dañu gis dafa ñàkk a jox cër conseil communal, yi ñàkk jox cër conseil départemental. yi gis nañ ni Khadim Diop bi mu demee conseil national ba léegi dafa jël am benn même mise ci conseil régional bi loolu nag ñu dañoo jàpp ni c'est la sous la complicité du de l'inspecteur de la jeunesse bu régional bi parce que Khadim Diop bi mu demee dañu war a immédiatement après def renouvellement de bureau bi jël sa poste Khadim Diop tegaat ko ci euh, loxoy keneen mais depuis boobu inspecteur bi organisé wul semaine nationale bi ngay wax nii nag bala bobit it semaine nationale bi fi amone de la jeunesse amé Dakar ñu gis ni amone na comportement yi amni ñu dañ ko décrier parce que dafa am li nga xamné suñu njit yi ñuy ci commune wala département dañ ñoo jappalé jox yóbbu ñu fa xaalis wala jàppale ñu ci taxaway mais ñun bi fa nekkee dañu am jafé jafé gu mat sëg bi fa am donc ñu décrier ko ñu ñew semaine euh, vacances citoyennes ñew ñu ñëw gis ni ñun on n'a pas été informé donc suñu

parce que ñun ñoo tax mu nekk foofu ñun ñooy membre yi nga xam ne ñoo ko fa fal donc ñun dañu am benn devoir bi ñu war a moom moom mu am aussi benn regard bi mu war a am ak ñun te doxewu ñu oote nag ay réunion pour waxtaan ak loolu. xam nga comme ministre dafay ñëw wala programme dafa am dañu ne fond d' am na mais fond d' am na fond d' organisation lañ ko organiser ak fan la xaalis ba ñun nous sommes responsables laajte mbir boobu noonu amul benn kayit buy jot woon buy wuñ jot buy waral ni nii lañ organiser amul benn bataaxal xam nga sax mun naa comprendre loolu parce que ñun yëguñu bu ñu yëgul naka lañ mën a xam bi donc inspecteur de la jeunesse bi fa ne moom ci boppam moo war a xoolaat doxi doxinam moo tax nag médias yi bu ñu ñëwee dañuy permettre autorités yi ñi xam ni ñun ki ñu fi tegal pour mu teewal fi jeunesse bi teewaluñu fi ñu xamné ne ministre bi parce que tamit ni ngeen di jotee information lañ ko jotee moy ni japp na ni dañuy boycotter manifestation bi alors boycotter wuñu parce que ku yëgul do boy do ñëw donc ñun problème bobu la ñu am problème d'information et problème de gestion de fonctionnement ci la ñu am. un million dañ né fonds de fonctionnement la pour organisation bi nu muy demee léegi nag un million bi génn na fan la jaar 1 million bi génn anamu inspecteur ko mun wax ñëw nañ ba suñu bi département seet suñu mais xamuñu. lu ñu xamul est-ce que yoon la war nañoo recevoir ku mel ministre de tutelle te mënuñoo wax exactement lii lañ def bi gisuñu benn président conseil communal bu fa taxaw gisuñu benn président conseil d'arrondissement conseil départemental gisuñu xam nga ñun toogaguñ ci table bi ñuy waxtaan ak ministre moo tax occasion loon bu ministre bi wax ko li bu ñu man ñun dañuy lancer appel en même ministre bu ñu mënee recevoir nañu représenté ñun dañu recevoir ñun conseil régional wala conseil départemental ñu wax moom lépp day leer parce que bu ñu bëggee lépp leer nañu recevoir ñu toog waxtaan moom mu xam fan dëgg bi féete mais ñun ñoo ne inspecteur bi convoqué wu ñu informé wu ñu nañu génneel bu ñuy wane loolu